di ci woo nawle chauffeur bu nekk di ci woo bépp opérateur ndax dañ mbir mi du mbirum kuy dund mbirum ku dee la luñ ko kuy dund ku dee lañ koy defal ku waaj yàlla wàccee a ah, mu nekk loo xam ne ni am na solo am ci liggéey ci àdduna li ko jig ak li mu soxla muy li mu yittewoo mooy ku ko ñaanal yàlla waaw yow ko ñaanal yàlla dangeen ci bokk yu yiw yàlla da koy jot li ñaanam di la fay yow yiw kon bu kenn tayé di ñaanal aji delu ji ca yalla muy bis bi muy budul bis bi parce que waktu kenn ku ne da nga julli waxtu juróom te heure waxtu ba pare yaakar naa war nga ñaanal aji dawlu yi gëm sunu moromum julit japp sunu moromum doomu arama ñun sunu xamé wuñu julit bi ak catholique bi ak malade manto bi ak kiñ ne koku mi ngi and ak sagom ku ñew bok ñun ñun sunu buntu yépp lañu fàllu ñu lay ñaanal yàlla yàlla nga yàgg suñu kanam yàlla bàyyi la ak ñun yàlla dolli sa sutura yàlla yokk sa xam-xam yokk sa xalaat yokk sa leer gëstu bi nga ñëw di ko gëstu fii ci ndar yaakaar naa ni képp koo xamante ni si da nga yoon nekk si yoonu murit rawatina si ni ma ko mën a waxee rawatina boo jaarul ndar sa gëstu dina des waaye lépp lépp. dañuy jiital alxuraan. ñoom nañu doolee góorgóorlu te xam ne li ñu ci am ni payu yàlla la du payu doomu aadama buñ ci xool lu leen di fayee ndax su ñu demee ñoom jël seen xalaat jël seen temps di dem ci ay nit ne dañu bëgg a wàcceel kaamil aji wàcc liggéey ñoo itam jël seen ay ñaq di ca participer ñi ñi joxe woon ak ñi jógoon di jëf ak ñi romb di jar ñëpp ñoo ñoo bokk tuyaaba waaye ñoom tey dañu nekk loo xam ne tey ubbi nañ ko nag ñoo ko jiite fa ñoo ko jiite ba faaw incha allah yàlla leen yàlla may kattan gi ak wér gi ak xalaat gi muy yow fallu muy njoogu muy Pape Fall muy jawriñ Cissé muy Baye Banda ci ñi ma jot a gis ci taxawaay yi man day ñeenaa leen ñeenaa leen ndaxte da ngeen def lu rëy def lu rafet def loo xamante ni si kuy wut tuyaaba ak kuy sàkku ngërëm ak képp koo xam ni yaa ngi am yaakaar ni ëllëg di nga tëddi barzaq nga jël sa xalaat di ko ñaanal ñi tëdd ca barsax am naa yaakaar ni yow dangaa jara ñee kon man dama leen di ñee waaye euh, ba tey nañ delloo lépp ci yàlla ndax yàlla am na koo xam ne mi ngi ñu ngi dox ci suuf am na koo xam ne mënul am xalaat bi am na xam ne koo xam ne tey mënul am xalaat bi am na moyens yi mais amul xalaat bi mais ñun am bu ñu amul moyens yi te am xalaat bi te ba pare jël aajo bi jël ko teg ko suñu bopp lépp dañ koy delloo ci loxol yàlla kon fàllu ma ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax di gërëm baay Banda bu baax a baax ak jëwriñ Cissé ak euh, Pape Fall ak képp ci jàpp ba si jigéen ñi nekkoon ci waañ yi di togg ku lim juum ndaxte ñi ñi joxe wu ñaq ak ñi ñëw teew ñëpp ñoom ñi délégué ñoom ak ñi defar délégation bi ñëpp bi bokk yéene mooy dañuy sàkku tuyaaba ak ngërëmal yàlla aji dawlu yi li ñu leen ñaanal nag yàlla yàlla suñu borom bi nangu ko te jottali leen ko d'accord ay chauffeur lañ waaye kaamil bi aji dellu yi lañ ci si lañ ci lañ ci fasaale. chauffeur taxi yi chauffeur kalandoo yi chauffeur bus yi yàlla def na ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ ndax dañu am ñu organiser di ko dajale di di ko def léegoo léeg ñu organiser suñu ay lu mel ni football toog dajaloo waxtaan kambale muy côté chauffeur bus yi. yu jógee ñëpp ay jàngal alxuraan lañu woon te boo dee jàng alxuraan a jógee fi mën na ko jàngalee dañ la jëriñ. la yàlla wax safari fi bàyyi ko ak receveur ak contrôleur ak régulateur ak ñëpp ñoom ñëpp nañ ko boole dañu am nañ fi nekkoon tey di wàcce kaamil ndax euh, dañu am suñu ay moromu chauffeur yu fi newoon ñett ba ñeent ñu wàññeeku ak benn opérateur man na ci opérateur yi laa bokk mais en même temps man maa yor sama chauffeur léegi ñu nekk fii wàccee fi kaamil bon ñaanal leen yàlla daal bëgg nañu nag di ko def chaque année incha allah bu soobee yàlla bu ñu ci yàlla may wér moom daañu ko bëgg nañu di ko def di ko taxawee xale xale yi nag ñoo ko organisé maanaam chauffeurs yi ñoo ko organisé ñoom ñoo ñoom ñoo am initiative boobu quoi. opérateurs yi ñoom ñoo ko woon mais gannaaw yàlla chauffeurs yi ñoo ko def gars yi ñëw jàppale leen si. Euh, dañoo nekk fii ci barab ñu defal ko nag ñi nga xam ne dañ daan liggéeyee fii ba yàlla moom leen ñu wàcc ay liggéey moo xam chauffeur la wala opérateur wala receveur ñu daje pour wàcceel leen ay kaamil ñaanal leen yàlla mu jéggal leen. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam Euh, di sant mbokk yi nga xam ni ñoom lañ àndal organiser lii muy sëfoor yi nga xam ne ñoo nekk fii ci bis Tata euh, di ci liggéey ba egsi fii ñu ngi leen di sant bu baax di sant yëpp yi gis nañ ci seen taxawaay bu baax sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla ñaan yin fi def yàlla nangu ko te it ñooñu njaboot gin fi bàyyi yàlla teg ci ñoom loxo euh, di sant ñëpp te it di sant waa télé bi di Saint-Louis TV di ñaan yàlla defal leen jàmm defal leen tawféex ak sutura barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bismillah Assalamualaikum. mbokk jullite mbokk talibé yi maa ngi nyep, ñëpp di bégé ñëpp di nuy kenn ku ne sa sa sant waaw di lool nak si li nga xamante amna fi tay mu nekk li nga xamante ni mbirté la sunu fierté la ndax suñu ndam la ñun ñëpp ci siy bëgg mu nekk li nga xamante nak dañ ka créé ñu tok waxtaan si ba tënk si jubal si ay kàddu te bëgg chaque année di ko di ko waaw diga defé ni ndax nit ku nekk mbokam la am nit amul lenn lu dul mbokk amul lenn lu mbokk amul lenn lu mbokk akam ak julit ak julit té li rek la julit mënal monam julitam muy ñi nga xamanteni joggé fi suñu morom suñu papa ak suñu ay nijaay ak suñu ay mamiya yi nga xamanteni joggé na fi fani new waaw ñom lañ doon defal tay wacce kamil ñu di leen di ñaanal fi ñu ne gënal leen fi ñu suñu borom defal len tawféexu àdduna ak tawféexu alakhirah suñu borom xala len aljana yu gëna kawé kawe fi dawsi. waaw lu ñuy yëkkati fi mom kaddu sante kese la mooy maanaam di wo mbokk taalibe yi di wo ñëpp képp ki nga xamantene ne yaa yëngu ci milier auto rek manam mbir mi mbiru ñëpp la nekkul mbirum kenn ñëpp ñoo ci wara loxo ñëpp ñoo ci wara japp waaw amana chaque année bu ñëw rek ñukay défé ni té muy gëna kawé kawe ñukay dégg fu gëna a kawe waaw di bëgg lool di wo ñëpp nak di wo ñëpp waaw di santaat bu baax ñun moom mbégte rek nañu wane ndax waaw di sant waa Saint-Louis TV ndax lii at bu rafet la waaw nit bàyyi léppam ñëw déplacé ñëw jël la indi pour lii